jërëjëf mbokk yi seetaan RTT TV ñu ngi leen di nuyu fu ci waay mën a nekk ah, ci seen télévision bi di télévision des artisans de Thiès ah, di télé bi nga xam ne saa su nekk mu ngi dox ci yittey ah, secteur artisanal waaye rawatina émission bi nga xam ni mooy seen émission 100 pour cent artisanal ki leen koy présenté di seen mbokk Khadim Soumaré Euh, ñu nuyu mboolem président OPA yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yëpp bàyyiwuñ ci kenn euh, di ci jiital ki nga xam ne moo jiite euh, chambre de métier de Thiès Amadou Makhtar Seye ñu nuyu ko bu baax jox ko wàccuwaayam nuyu staff bi nga xam ne moom la àndal di liggéeyal waaye nuyu aussi ki nga xam ne mooy sunu ministre jox ko wàccuwaayam bu baax muy ministre de l'artisanal Birame Faye ñu jox ko wàccuwaayam bu baax nuyu ko. Euh, waaye nuyu staffam yëpp waaye nuyu mboolem corps des métiers yi nga xam ne ñu ngi nekk ci secteur bi fuñ ci waay mën a nekk rek euh, ci réew mi ñu jox leen seen wàccuwaay bu baax a baax waaye nuyu kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ak lu génn dëkk bi jiital ci Cheikh Mamadou Mountakha Bassir xalif général des mourides si ñaanal ko suñu borom guddal fanam tamay ko wér Serigne si Sy Mansour euh, ñu ñaanal ko moom it aussi mu yàlla ma defal ko tawféex defal ko fan gudd liggéey bi muy liggéeyal islam mu def ci lu kawe njortam waaye ñaanal ko Serigne Muniru Njegéen alxalifa ah, sunu borom guddal fanam te may ko wér waaye ñaanal ko njaboot gi yëpp ah, ñu ñaanal ko si njabootuk Serigne Saliou Touré ñaanal sang ba sunu borom yokk ay leeram ah, te taas ñu ci barkeem mbokk yi tey ñëwaat nañu ci seen jotaay bu am solo bi ni ñu leen ko waxee rek bépp actualité boo xam ne am na ci secteur bi télévision bi dina jóg dox wax ci moo waral tey ñu indil leen acteurs yi nga xam ni xam nga leen Euh, ñuy ay acteurs de phare yoo xam ni xam nañ leen ci secteur bi saa su nekk ñu ciy dox di ci wax waaye lépp lu ci avancé aussi tamit nga gis ci seen loxo euh, muy président Pape Ibrahima Ndoye euh, jiine jiite menuisier bois yi nga xam ne ñoo nekk région de Thiès ñu nuyu ko jox ko wàcc waayam président ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu ak mbokk yi. waaw asalaamaaleykum Mame Khadim. maa ngi lay nuyu di la gërëm. di am mbégte ak contentement aussi ñëwaat ci RTT TV. pour waxtaan aussi ak sunu mbokk artisan yi mm-hmm. di nuyu euh, di gërëm président Mamadou Seck ci taxawaayam mm-hmm. ci liggéeyam ak ci euh, firndeem ni mu taxawee ak ni mu gëmee artisanat ak fi mu fi mu jëlee daal yëf yi moom ak fi mu ko yóbbu mm-hmm. kooku aussi ñu ngi ko ciy félicité ci gërëm di gërëm sunu caméraman yi di gërëm daal bépp artisan pour ñëw aussi pour ñu nit participer ci émission bi man ci génn waat suñuy xalaat hmm. waxaat ci suñuy idée ba nit ñi ak artisan yi gën a mën a comprendre lan mooy secteur bi ak programme yi fi am nan lay doxee ak fu mu toll. Mhm. Euh, mu ngi noonu président wax na ko ñu gën a comprendre activité yi fi mu toll euh, loolu moo waral tey sax émission bi ñu jagleel ko projet bi nga xam ne mooy projet PEJA euh, dinañ ci ñëw gën koy yaatal ba artisans yi gën a comprendre projet bi tey fa mu tàmbalee ba fi mu agsi tey ndax fi mu agsi tey nit ñaa ngi ciy bég di ci am mbégte loolu yëpp dinañ ci ñëw ak ñoom waxtaan ci ñoom waaye ba tey président Mamadou Seck di président du des terres de Thiès. Euh, moom it ñu dalal ko euh, am mbégte ci dalal ko bàyyi ko mu nuyoog téléspectateurs yi président ñu ngi lay nuyu. Euh, merci beaucoup Khadim ñu ngi lay nuyu bu baax di la fay. di la jaajëfal ci taxawaay bi nga xam am nga ko ci émission cent pour cent artisanale nga xam ne saa su nekk yaa ngi fexe di wéyal li nga xam ne mooy message yi jëm ci corps de métier yi waaye rawatina artisanat ñu ngi la ci jaajëfal bu baax. Mhm. ci sa taxawaay di nuyu également suñu kilifa laay wax muy Pape Ibrahima ndoy mhm. muy sunu kili sama kilifa ñaari yoon benn bi moo mag ci at ñaareel bi li mu xam ci secteur artisanal xamuma ko ñetteel bi daanaka sama dëkkandoo la ba pare doon sama kilifa encore di sama xaritu waajur mhm. di di di yëngoog moom ci lu bari mhm. kon mën naa ni moom sama kilifa la ci ci facette yu bari mhm. kon it moom maa ngi koy nuyu defe naa ne bii mooy ñetteelu yoonam ci cent pour cent artisanal loolu nag day wane ni moom xam-xamam ak taxawaayam ak dayoom mm-hmm. ak grandeur am mm-hmm. ak surtout communication ci secteur bi def dafa am solo mm-hmm. moo tax saa su nekk bu dara amee yëngu-yëngu wala information ci wax ma la pédia rek waaye artisanat dañuy soxla xalaatam te bu ko RTT TV invité mu dagg ay yiteem yëpp ñëw kon Xaadim ñu ngi ko ciy sant bu baax ci teewaay bi ak taxawaay bi di nuyu également les artisans waaye le regroupement des tailleurs bu baax di nuyu président Amadou Makhtar Seye di jël nuyoo yëpp di ko teg ci loxo mu tegal ko ñu loxo artisan yi waaye di nuyu regroupement des tailleurs mhm. yi nga xam ne moom la ñu jiitee di nuyu le président sortant Abdoulaye Ngom mhm. ndax bu ñu amee occasion toog fi tey di wax ci PEJA mhm. war nañ ko ci sant gërëm ko ndax moom la woon ak Pape Ibrahima Ndoye parce que ñoom ñoo doon représentant CRA bi donc ba yàlla def ñun ñu ñëw mu doon continuité ñu ñëw remplacer ko ci ci ci ci ci CRA bi. Mhm. ba tey résultat yi nga xam ne moo fi am am agsi fi. Mhm. xam naa dinañ ci ñëw incha allah ci kanam. dinañ ci ñëw mu gën a yaatu président Mamadou Seck nuyoo bi am na solo waaye ci fàttali gi dégg ngeen mu fàttali ñu euh, président Pape Ibrahima Ndoye ci euh, ni mu miinee kër gi. Mhm. Euh, man maa ngi fàttaliku première émission bi ma njëkk def ci 100 pour cent ñu defee woon ko fii ci benn restaurant. moom mii moo nekkoon invité bi keroog ñu waxtaane fa lu am solo. muy mel ni kon miin na kër gi waaye miin na émission bi. Euh, lii nga xam ne tey aussi tamit moom lañu bëgg a waxtaanee tey di projet PEJA euh, muy doon loo xam ne lu mu maîtriser la moom président Mamadou Seck moo tax ñu choisir leen comme ay invité comme tey actuel actualité bi nga xam ni moo am ci secteur artisanal euh, projet PEJA bi la parce que tey ñu ci bari ñu ngi ciy am mbégte di ci am bànneex xam naa ci régie bi Babacar man nañu woon image suñu ginnaaw ñu xool ni acteurs yi ci nekk di jote seen li nga xam ne mooy seen i remise matériels yi nga xam ne digoon nañ leen ko loolu danañ ci waxtaan waaye balay ñuy ñëw ci bénéficiaires yi dañuy euh, déparé euh, président euh, nga fàttali ñu tuuti ci projet bi lan moo ko taxoon a jóg ak kañ lay ñëw ci li nga xam ne mooy secteur artisanal. waaw jërëjëf maam Khadim. projet PEJA. projet la boo xam ne état du Sénégal. ak banque mondiale. ñoo ci jóg pour jàppale ndawu artisan yi maanaam apprenti yi. Mhm. seen capacité. fexe ñu am certificat ay diplôme d'état doole laat entreprise yi mhm. en équipement et en formation mhm. Mhm. loolu it loolu état ak banque mondiale ñu teg ci trente milliards boo gisee ñu tudd trente milliards yi ah ñun yàgg nañ ci secteur bi de mosuñu dégg programme bu tol noonu wala bu amoo dayee noonu mu jëm ci artisanat loolu nag bu ko état tegee pour régle ay problèmes yoo xam ne tey secteur bi yooyu jafe-jafe la gënoon am ñu nekkoon dañuy jël ay corps de métier pour la première fois ñu jëloon huit corps de métier. mënoon naa ci tudd quelques corps de métier menuiserie bois tailleur coiffeuse menuiserie métallique. horticulture horticulture réparateur euh, frigo. Mhm, mhm. Ah. Mm-hmm. ak uh, ak céréales locales. céréales ok après ñu defaat beneen sélection ñu ne dafa amaat yeneen corps de métier. Mm-hmm. yaakaar naa ci deuxième choix bi lañu ñu jëlaat sax horticulture. horticulture deuxième donc waaw ci deuxième choix bi lañ deuxième tànneef bi lañ jëlaat horticulture. Mm-hmm. bi ñu jëlee ñooñu ñu wax leen programme bi nan lay demee ci ñaata temps lay durer. donc c'est un programme qui devait durer trois ans. ñuy renforcer waat ci capacité xale yi former leen ci former waat ci patron yi ndax boo seetloo atelier yi bu patron bu ci ne def nga trois formation trois formation waaw mm-hmm. def nga entrepreneuriat def nga euh, gestion financière ak euh, je crois am na daal troisième formation bu ñu def. Mm-hmm. noonu apprenti aussi defal nañ leen trois séries de formation. Mm-hmm. léegi ci loolu ñu ne programme bi dañuy jël. huit mille ateliers. huit mille ateliers huit mille ateliers mooy juróom ñetti junniy atelier da yaakaar naa loolu mooy mooy mm-hmm. huit mille mm-hmm. ñu ne atelier bu ci ne néew néew mm-hmm. dañ fa jël apprenti bi ñu calculer apprenti yi muy trente deux mille apprenti kon xam nga ne loolu ni mu laal yaatu na bi ñu defee première sélection yi sélection yi nag da ngay ñëw def demande amul fay amul dara ñu laaj la fu sa atelier nekk ndax am nga atelier ndax am nga apprenti nga justifier ko indi seen kayitu juddu bu dee am nañ ko wala seen photocarte même boo ko amul. Mhm. may nañ la mayoon nañ la. Mhm. pour nga wuti ko. Mhm. am nga carte chambre de métier am nga ko. amul problème may nañ la après nga wuti ko. ndax bi ñuy sélectionné aussi sélectionné wu rek ñi am carte. wala ñi nga xamoon ne seen carte dafay jeex. dañoo sélectionné kulli artisan. maanaam bi ñuy sélectionné. mayoon nañ chef d' entreprise bi même. boo amul carte boo amul carte professionnelle. ñu formalisé wul ñu mën a dem formalisé wul. de bokk bokk ci ah, ah. Mm. même ñi nga xam ne amuñu woon emprunté aussi tamit. am nañ possibilité dem wut ay xale. Euh, dugal seen i tur. dugal ci programme bi le temps programme de mais mënoon nga joxe ñaar mayoon nañ la joxe ñaari tur yooyu. Mm-hmm. le temps ñooñu nga réglé ko. ok mm-hmm. ñu dolli ci waat euh, loo xam ne moo gën a tax nit ñi gën a ñeme gën a bëgg. bi ñu demee commencé def sélection yi. Mhm. ndax sélection bi aussi dafa amoon ñaari note éliminatoire. Mhm. ci yooyu rek boo ci sàgganee mu ne maanaam bu ñu ñëwee xamuñu foo sa atelier ne. Mhm. loolu dañ lay éliminer. boo ñëwee ne awma apprenti dañ lay éliminer ndax programme bi li ci jiitu woon moo doon pour apprenti yi d'abord. mais boo waxee patron yi nañu jàngal apprenti yi. te néexalaloo patron yi. patron yi mën na am du ñu sawar. duñ ci sawar. xam nga. ñu ne yi. dañu leen di équiper seeni dañ leen di jox ay machines yoo xam ne dana toll ci un euh, ku ci nekk di nga am valeur un million trois cent. un million trois cent. ñu dem ba ci biir Covid bi ñëw. un million cent ci ay matériel ci matériel. Mm, du doon xaalis du la ko jox xaalis. ok mais bi Covid bi ñëwee ateliers yi sooxee liggéeyuñu. ñu génn ci trois cent mille. Mm. jël cent cinquante mille jox nit ñi liquide. Mm. jël cent cinquante mille def ko ay produits madaar ay gants ak yooyu ñu def maanaam mooy xaalis bi nga xam ne ñu ngi ko doon envoyé artisan yi. waaw kay. 300 millions yi benn 150 mille bi la. dañ ko jë dañ ko ñu ngi ko jëlee ko waat ci beneen budget bi dañ ko jëlee ci budget équipement bi ñu joxoon. 1 ah, million 300 ci 1 million 300 bu nekk loolu nga war a. waaw ok léegi nag moo tax léegi. yàlla kon ñu bénéficié wu de 1 million 300 waaw parce que 300 mille yi joxe nañ leen. waaw bi ñu demee ba ci biir. am na ñoom projet bu ñuy doxal dafa am yoo xam ne dañ koy nëbb hmm. bi ñu demee ne ba projet bi sori ba nit ñi engagé ñu ne noonu apprenti yu jigéen yi dañ leen di may kenn ku ne cent hmm. am na jot am na ñu jotagul apprenti yu góor yi ku nekk ñu may la quatre vingt mille wala quatre vingt douze hmm. am na ñu jot am na ñu jotagul boo seetloo li ma la lim équipement équipement li ñu wax maanaam bu dee tiréer nga wala menuisier wala nangam maanaam machines yi wala bagages banque mondiale dafa dégager neuf milliards neuf milliards. loolu mooy équipement yi. ok leneen ni nag mën na dugg ci formation yi ci séminaire yi. ak trente milliards la woon yi neuf milliards kon kon vingt yi. neuf milliards. neuf milliards yi moo dugg ci léegi nag vingt et un yi. Mhm. mooy dugg ci ci projet bi. dem ci formation yi. dem ci formateur yi. dem ndax xam nga forma programme national la moo tax. Mhm. dafa yaatu. ok donc loolu aussi. Mhm. nit ñi liggéey nañ ci. xaar nañ ci mhm. xaw na diire mhm. mais gis nañu ne am na processus boo xam ne mhm. ba tey dox naa doxa doxa dox ba ñoom li ñu waxoon presque respecté nañ ko à plus de quatre-vingt-dix pour cent ñu ngi joxe équipement yi Thiès actuellement ñu ngi joxe équipement yi xale yi am na ci ñoo xam ne dem nañu examen ñii am nañu ñii amuñu patron yi am na ci ñoo xam ne dem nañu examen commencé nañu jox leen am nañ seen attestation euh, mhm. ngi xaar seen diplôme am na solo président am na solo waxtaan wi commencé naa ubbeeku def naa question yu bari. Mhm. yoo xam ne ñu ngi ko doon dégg ci mbedd mi président avancé na ci waaye danañ ci dellusiwaat ndax am na ci ay sew sew yoo xam ni bëgg naa mu gën ko leeral waaye damay ñëw ci président Seck ci ba tey ci premier point bi muy début euh, projet bi bi biñ koy soog a indi ñu bari comprendre ko woon moom mu nekk secteur euh, textile bi mu ñëwee ci ay loxoom ah, président xañ na miin nga sax secteur bëggoon ci sa secteur tuuti ñu xaw cee concentré wu ci question boobu. Mm. Euh, projet bi bi ñu ko lancé mu nekkoon ay fiches yoo xam ni fiche questionnaire la woon. Mm. Euh, nga jot ci lan moo nekkoon réaction wu membre yi. Mm. tax ma ne début bi. waaw ah. ñoom ñoo ci nekkoon. Mm-hmm. waaye ñun ñu ngi woon ci ginnaaw. Mm-hmm. parce que ñun ay ndaw lañ ci woon loolu tax ñu xam ci lu bari. ok moo tax bi ñu ñëwee ñun. méttiwul mm-hmm. ci ñun. donc ndax dañoo topp suñu kaw mag yi. di ci jàng. di xam parce que man loolu Euh, projet bi ni mu ko waxee noonu la demee euh, ñaari fase yi ma ciy dolli ci fiche yi. Mhm. ak ci madaar yi. Mhm. ndax léeg-léeg nit woo la ne la pourtant amoon naa ci cent cinquante. cent cinquante mille loolu sax moom laa bëggoon a ñëw. après ci moom amoon naa ca amoon naa ca. waaw waaw amoon naa ca cent koy wax waaw jàpp nañ ni ku amoon ca cent cinquante mille rek. da ngaa war a war a am ñu bari nañu koy wax demul noonu. ok cent cinquante mille boo xoolee première ñu njëkkoon a bindu. Mhm. ñoom la ñu joxoon opportunité. jël ci cent cinquante mille jox leen. avant ñuy sélectionné avant ñuy sélectionné moo tax ñëpp am. ñëpp am. Hmm. te ñu bind woon. képp ku bindu woon rek. ñu bind ah, woon ah boobu sélectionné guñu. déedéet sélectionné guñu waaw ñooña. ñooña léegi nag. Hmm. li ci dolliku. Hmm. mooy ginnaaw sélection bu Madaria. waaw dañoo ibbiwaat liste. jox sens. ñeneen ñi bind moo tax nga waraloon. téyeer yi ñi surtout téyeer yi. fu ñu dégg fii sax daw jëli ko. mooy jëli ko mujj gi. Mhm. parce que ñoom jàpp woon ne ay machine la. Mhm. am na ñu am tey nii ay machine mhm. jàpp woon ñoom dinañ am ay machine ñoom lañ jàppoon. la tax ñu bindu mooy fanweeri junni yi lañ dégg. mais président fanweeri junni yi am na ñaar am na ñaari fanweeri junni yoo xam ne artisans yi ñu ngi ko doon jot parce que am na bu jóge woon ci état bi euh, ministre de l'artisanat daan doon ko joxe. fanweeri junni yëpp benn la. yëpp benn la. fanweeri ah. junni yi ah, ah fanweeri maanaam ah. fanweeri junni yi ñoo bokk fa ñu jógee waaw parce que am na projet bi ñu doon wax euh, indi covid euh, vingt cinq millions xaw ma dafa am loo xam ne li bu ñu bu ñu waxantee réalité mm-hmm. comme par exemple man nañ ne budget bi fii la jóge cent cinquante mille yi fii la jóge mm-hmm. ñun fa lañ koy jëlee ñeneen fa lañ koy jëlee mais comme la tutelle mm-hmm. le ministre de l'artisanat dafa am droit am ci accès man mii amuñu nëbboo parce que je parle sur la la télévision. su ma jiitee OPA bu toll ni regroupement des tailleurs. samay membre dem bindu ñu jox leen cent cinquante mille. ñu woo ma ne ma naa leen naa joxe liste trente personnes. trente personnes pour pour ay affaire de cent cinquante mille mais imaginez trente personnes président ma tànn ko ci sama organisation naan damay dem pour ñu jox ma cent cinquante mil te fekk na cent cinquante mille yi génn na ba pare loolu tas regroupement la wala tas EPA la da waroon ibbi ay ay mécanisme yoo xam ne ku dem dina am parce que xaalis boobu ba ñuy wax ak yow Pape Ibrahima mën na ko seede xaalis bi jeexul waaw ñu ngi koy réclamer ba léegi xaalis may wax ak yow xaalis boobu jeexul parce que bi ñu demee rencontre ak euh, président à la présidence euh, président recevoir artisan yi bi ñu fa demee pourtant boobu wax nañ ne des na douze milliards te douze milliards yi ci ginnaaw gi ngay dégg ñu naan ñu ngi def ay liste yóbbu waaw waaw loolu nag xëy na ci cadre politique. am na ay groupe yu ñu déggoo. dem nañ sax ci lañ ko doon defee loolu nag moo tax. Mhm. mu nekk ñaari ñaari ñaari groupe de cent cinquante mille mais beneen cent cinquante mille moom ci voie normale. Mhm. lañ ko jotee beneen bi nag xëy na on en politique kenn ku nekk da ngay fexe satisfaire say say say militant politique wala yeneen ak yeneen mais ñun li ñu am droit mooy ñu informer ñun suñuy membre mhm. ne lii ngay def pour mën a am accès ci nàngam boo defee nangam am nangam. Mhm. looloo taxoon nag pëccëxoo gu bari cent cinquante mille yi ñuy jaar fii ñii di jaar gauche. Mhm. mais toujours da ngay gis ni artisan yi moom ñu bind woon bari na. Mhm. am na ñu jot am na ñu jotul am na ñu jot ñaari yoon. waaw am na ñoo xam na ñi dañoo jot ñaari yoon parce que dañoo bindu ci voie normale. dem binduwaat politiquement. doo amaat ci cent cinquante mille. mais voie normale bi ma. delloo mooy nga jël fiche. waaw dem remplir sa tur sa carte d'identité sa numéro dem yóbbu chambre de métier déposé dem la envoyé la. voie politique am na boo dem ci ñi ñi ñi yor ndombal tànk li exemple euh, man nga dem ci le ministre de l' artisanat wala nga dem ci euh, nangam ak nangam ñi nga xam ne ñoo nga artisanat bi. dem tëb art secteur. non si euh, chambre de métier dem foofu bindu. mais am na. est-ce que loolu mooy lo loolu. mën nañ jàpp ni li du bëgg a leeral foofu. waaw li mu bëgg du leeral foofu. xam nga foofu dafa am hmm. ñaari confusion. Hmm. dafa am fanweeri junni yoo xam ne. Hmm. ci lañ ko jëlee. ci PGA lañ ko jëlee. am fanweeri fanweeri beneen fanweeri junni bi. état moo ko joxe. ndax ngi dépendre ci ministère de l'artisanat. waaw mooy bind bu mujj bi. boobu docteur Pape Amadou Ndiaye moo fi noonu voilà. te am na ci décaissement bu mujj bi ba amoon na waxoon na ne am na benn cinq milliards mi ngi doon xaar ministre des finances dolli ko beneen cinq milliards cela veut dire xaalis boobu ba léegi joxewul waaw ci rappel boobu lañ doon wax ni euh, ku am carte professionnelle mooy bindu ba si yàgg ñu ni sax léegi ñëpp bindu waaw ñëpp daal di bind mooy mooy mooy mooy mooy deuxième phase mooy bu mujj bi mooy bu mujj bi donc dafa am cent am cinquante mille xam ne ci xaalisu PEJA lañ ko jënde mm. mu amaat beneen boo xam ne ñu ne président dafa jox maye woon trente milliards pour mm. aide aide Covid aide Covid 19 njëkk joxe dix milliards mm. joxe xaw ma cinq milliards noonu lañ ko joxe woon waaw mais ñi njëkk a ñi njëkk a séddu ñooñ jot nañ mooy ñu am madaar ba nii mooy ñu am madaar ak cent cinquante mille waaw bokkul bokkul boobu mooy pédia bi madaar ak cent cinquante mooy mooy mooy mooy pédia bi mooy pédia bi waaw beneen cent cinquante bi moo indi confusion voilà waaw loolu ko leeral waaw loolu ko communiquer léegi dañuy bàyyi nit ñi dañoo bàyyi rek toog euh, nit ñi jàpp ne cent cinquante mille yëpp benn la du benn de waaw ah, mais bi bi président waxee ñeneen wax ñu ne ministre cinq milliards la ñuy xaar pour bu ñëwee nangam hmm. ba bi ministre de l'artisanat bii di wàcc hmm. milliards yooyu dégguma benn yoon bu ñu ko séddalee. Euh, ba tey président bu ñu dikkaatee ci loolu ba tey damay indiwaat point bi euh, question bi <laughs> euh, ndax ñu bari dañuy wax ni léeg bu ñuy joxee ay fiches ñii dem leen ngeen bindu dem leen ngeen déposé ñu bari duñ ko gëm. dañuy jàpp ne ay caaxaan la ay fola moo tax mu bëgg sa réaction ci fiches yi bi mu ñëwee. fiches yi bi mu ñëwee. waaw am na ci yoo xam ne man en personne. maa mujj man jël en charge. Hmm. photocopie lu bari. Hmm. teg ko. Hmm. ci bureau bi. jël secrétaire teg ko. du tey rek président mii am na tailleur yoo xam ne yii ci moom lañ bindu. te menuisier bois la mais dafa bokk ci ñun. ok dafa ma woo téléphone ne ma président mën na nangu am nga fi nangami tailleur ci marché Thialy. bind naa leen ci man. ba déposé naa leen ñooñu am na tailleur yoo xam ne bu ñu amee ci machine yi yàlla ak président Ndoye mii. mën naa ci cité ku mel na sama ma sàmba Seye. ak ñeneen ak ñeneen ci marché caali bi Pape Ibrahima Ndoye mii moo tax ñu am ci machine yi parce que dafa ma woone ma ñëw ma yore fiis nga yore fiis fiis yëpp di benn hmm. ñu bàyyi fas fiis yooyu déplacé wu ñëw marché waaw bindu delluwaat tey ma yor moom la ñu yor te ma man ko te buntu place am la hmm. mu defal ma liggéey boobu hmm. mais loolu am na njariñ kon moom ñun ci ñenn suñu tailleur yi lu ñu am bénéfice ci machine yi. Mhm. war nañ ko cee sant gërëm ko. Mhm. parce que tax na ci taxawaay bu am am solo. Mhm. moom lépp lu mu gis mu jëm ci secteur bu du xaar. da koy def wala mu ne présent yebal naa la nangam wala defal naa la nangam wala defal nangam conseiller la ci ñun kon moom taxawaayam noonu la ñu yàgg di liggéeyee mais càggante gi am mooy ñu utal la fiche tegal la ko ne la boo mënta bind ñëwal toog indi sa carte ñu laaj la ñu lay bindal am ñoo xam ne da leen di woo di leen ko wax sax dañuy jàpp ne yow da ngay politique. Mm-hmm. wala da ngay politique secteur bi. Mm-hmm. wala yow dafa am leneen loolu ci nekk wala dafa am ay looy liggéey. Mm-hmm. bu leen ngay dégg. wala ko jox leen ko ñu teg ko noonu. ci seen suufu trois ñu teg ko am na ci koo xam ne kii. Euh, Ibrahima Fall. amul. waaye am na koo xam ne dafa fekk machine am mu teg fiche bi place am mu jël ko fëgg ko ba set. daal koy ah, rempliral fiis questionnaire bi ñu ko joxoon waaw mu rempliral ko laaj ko carte d'identité rempliral ko moom bi mu ci jotee da ko ko teg place am toog place am moom mais am na koo xam ne moo ko rempliral fukk ko rempliral ko dem jaar chambre de métier déposé ko ko dem tëdd këram ba affaire yi génnee kii am moom amul <laughs> mais kooku am tey jii uh-huh. li ma ci gën a neex dafa ma woo uh-huh. ne ma dafa jël juróomi machine uh-huh. woo ko téléphone ne ko benn machine bii ma fi teg yaa moom kaay jël ko macha allah mais machine bi jar fanweeri junni ak nga may ko nit loolu grandeur la. Ah, parce que bu bu bu deful woon réaction boobu. voilà mais théorie théorie xaadim loo ci mënti dégg. Ah. dañu dañu dañu dañu xaw a sàggan. Mm-hmm. dafa am loo xam ne seen intérêt la mais boo leen koy wax dañuy jàpp ne yow sa intérêt la yow. Mm-hmm. en personne. Mm-hmm. man machine yi mi ngi wax ak yow nii nii. Eh, bërki démb damay dem chambre de métier. Baye Fall bi fa nekk gardien. ne ma président te ngaa jël say machine ñëw ci sama bureau. Hmm. ma fi may fa kii ma dencal la ko. ah président am nga ci machine yi. non déggoo ma la. Hmm. président gardien moom laa lay nettali. anecdote bi daf ne ma. Hmm. yaa ngi yaa ngi xëccal gars yi balaa machine yi jeex. Baye Fall yërëm ma ci sonn gi. waaw jël say machine indi ko ma dencal la ko boo paree. Ah. nga yóbbu ko ma ne ko Baye Fall man aw ma ci machine yi. <laughs> ah bon ak ni nga doon sonne noonu. ma ne ko Baye Fall yàlla mi tiim xam ne ne ñëpp bindoo. Ah. laa bind sama tur bind sama carte d'identité bind samay app bind sama lépp. di orienter nit ñi di jox nit ñi information ci bari seex ah. seen laa jël machine euh, relais mhm. di ko jox par loo su yóbboo dix ma jox ko trois cent wala nangam noonu laa doon liggéeyante moom am na ci bari yoo xam ne maa ko doon jël en charge mhm. photocopie yi bari maa ko doon jël en charge mais bi machine yi génnee ba ñuy sélectionné su fekkoon njiit rek la man danaa am mais awuma mhm. kon kenn ku ci nekk man su ma amul kon kenn meneen membre bu amul dangay jàpp ni yow xëy na sa chance moo ci nekkul wala sa wërsëg moo ci moo ci nekkul kon nag ñu jàpp programme bi mel nii dafa am solo. Mm-hmm. lu ne lañ ci daj. Mm-hmm. pour programme bi parce que am na ñu bari ñoo xam ne ñi tey jii da nga ciy woon nit sax mu ne la nit mu ne la bu ma woowaatee ci Pédia parce que du ci ñëw am na fii ci marché central. que ñàkkoon na yaakaar daal. waaw mm-hmm. non aw événement ñi ñu woo ko mu ne aw ma mu ne mu ne aw ma jot. waaw parce que bàyyi seen yitte dem parce que formation yi ci digg événement la woon nag regretté ko regretté na ko. fi ne ah. lu ne la daj. dañ ko génne non parce que dafa am réalité. gis nga formation yi ngay dem di émerger ñuy bind fiche de présence bi nga def formation bi di ci jouer parce que ci base formation bi ci lañ lay joxee machine yi parce que yow dafa am lu ko tax a jóg mooy dafa am ñu nekk sa ginnaaw am ay apprentis yoo war a former dans le futur mu am contrat am convention am suivi léegi nag loolu boo fekkee yow defoo benn formation mais jàngaloo kenn teewoo pour mën a jàngal kenn ay la yooyu nan lañ lay joxe ci machine Mm-hmm. léegi nag loolu mooy moo moo moo mooy cas yi mm-hmm. mais nag am na ci cas yoo xam ne boo feebaree wala nangam mais nag sa volonté personnelle mm-hmm. amoo jot moo demoo wax dëgg yàlla bokkoo ci programme bi parce que programme bi comme ni Pape Ibrahima waxee ay sélection la c'est des critères ba fii may wax yow nii programme Thiès séddal nañ machine yi mais programme PGA am na ñoo xam ne ñu ngi leen defal ay ay enquête ba nag ni dinaa ci ñëw président parce que gis gis nañu beneen euh, euh, beneen recensement boo xam ne defaat nañ ko ci marché yi. Mhm. xam naa bu ma ñëwaatee ci yow dinañ ci ñëw mais président Ndoye dama bëgg ñu dellusiwaat tuuti ci waxtaan wi parce que sànq ñu ngi wax euh, ñi nga xam ne ñoo bénéficié wu ci cent cinquante mille yi bu fekkente ne ñi nga xam ne ñoo dem am Madaar am cent cinquante mille amuñu ay machine nan lañ ko mën a expliquer. ak ñi nga xam ne tey xam naa avancé nañ sax ci euh, point boobu ndax président wax na ci ñi nga wax ci muy ñi nga xam ne ñaari cinquante cent cinquante mille yi euh, xaw na leer kon boobu sax moom jërul ñu ñu ciy ñëwaat mais ki nga xam ne moom jot na madaar waaw jot na madaar ah <laughs> xaw na leer waaw jot jot na madaar <laughs> jot cent cinquante mille ah doon xaar ñu sélectionné ko sélectionné wuñ ko. man jotuma dara. man moom affaire bi waaw. c'est-à-dire affaire bi affaire bi dafa jar nag ñu leeral ko. waaw dafa jar ñu leeral ko parce que tamit même man mii fi ma toog jotuma ñu bari dañuy toog naan man jotoon naa bindu woon naa te jotuma. aha PCA bi. waaw. Mhm. ñoom. waaw man ci processus bi laa bokkoon. Mhm. bi ñu ñëwee. processus mooy ñi nga xam ne ñoo yoroon document yi di ko. salaamaaleykum ñu woo inspecteurs yi. waaw ca waxtaan bu njëkk ba. ca njëlbeen au gouverneur. kilifa yëpp. pour projet bu bees am na. ci la bokk ñetti fan la ñu woo di ñu wax projet bi lan la. ñetti fan. ñetti fan ñu dem lycée technique. pour ngeen comprendre projet projet bi lan la. xaalis bi ñaata la. Hmm. xaalis bi nan lañ koy dépensé. Hmm. lii lañ fiy dépensé lii duñ ko dépensé lii la ñuy def notes yi nii la points yi nii la tirage bi nii la ba mu am ñetti fan kon man xam naa. yéen yéen ak waa PEJA. ñun ak waa PEJA ci gouverneur assisté ko inspecteur EA ñëw toog inspecteur kilifa yëpp toog. ok kon dañu jëloon sept organes Laay Ngom ci la bokkoon. waaw Ablaye Ngom Laay Ngom ci la bokkoon président Ablaye Ngom Adama ci la bokkoon. Mm-hmm. je crois ak amoon na yeneen deux personnes je crois Malaw ak peut waaw mm-hmm. ñoo ñëpp ci lañ bokkoon ñu def ñetti fan mm-hmm. séminaire ñu wax ñu programme bi de A à Z lu ñu bëgg laaj ñu laaj ko lu ñu leen bëgg a gëstu ñu ko xam nga daf ci am li indi problème bi. Hmm. nit ñi boo leen di wax dara lu nu xamul. Hmm. du nu ko jéem a xam. Hmm. yow la ñuy jéem a déglu nga wax bu ñu la déggee ngay wax ak proposition yi neex neex ba ciy am dana ah sa waay politique. kii dafay ah. tardé du ma liggéey. Ah. xam nga. foofu la jafe-jafe bi commencé. man jox naa nit fiche. ci sama kanam keroog gis naa suma bopp. bi ma ko joxee fiche bi expliqué ko yëpp ba jox ko fiche bi. li mu njëkk def mooy lem ko dugal ko ci poche <laughs> ci sama kanam. lem lem fiis bi ba mu. ci poos waaw ba mu xaj ci poos mu dugal ko ci xam nga ne kooku man ah. <laughs> man dèjà bu ma doon ku gaaw gis sama naa gis sama bopp. ndax xamul moom parce que document bu mel noonu aussi. xam nga xamul li ko jox. waaw c'est xam nga yooyu nag def ci am. Hmm. beneen point bi nga xam ne danga ko laaj. Hmm. gis nga boo gisee moo Mamadou Seck amul. Hmm. mais ordinateur moo tiire. xamul leen loolu bi ñu jëlee kii dañuy jël fiche yi. du nit a tiire de. Hmm. machine moo tiire. dañoo jël machine yi jox ko données yëpp. tur tur yëpp na ci point loo gis ñu corrigé ko rek dafa am point bu ñu ko joxoon waaw. maanaam dafa am question bu ñu ko joxoon foofu. bu question bu ne ah, am nga atelier. Hmm. ñu ne la trois points la. ñu ne la am nga ñaari apprenti ñu ne la cinq point la. Hmm. ñu ne la am nga quatre chambres de métier ñu ne la deux points la. noonu la ñu calculer woon ba nombre de points yi man ñun ñu ñu defaroon séminaire ñun ñoo doon déterminer point yi. d'accord xale waaw ak yooyu yëpp. dañ ko ciy dugal. moo tax gis nga tirage bi. Hmm. c'est démocratique. ku ñu jëlul rek c'est parce que bokk ci ndax nit tànn. Hmm. léegi nag données yooyu lañ jël jox ko machine. machine bi tiré génn bi mu génnee bi ñu génnee sax effectif bi matul jigéen ñi dañoo manqué ñu ne def par équilibre. Hmm. il faut ñu jëlaat ay jigéen. moo tax jigéen ñi ñu mujj jël yëpp jàll. jàll mel xadi baas ak ay ñëpp a jàll jigéen ñëpp dafa déséquilibré woon maanaam góor ñi dañoo bari woon ba mu ëpp góor ñi dañoo ëppoon jigéen waaw dañu ëppoon ñu nekkoon dañu équilibré leneen li nga xam ne moo koy remplir ay jigéen moo tax sélection bu mujj bi ay jigéen rek lañ jël presque jigéen ñi jël yëpp a jàll mais ki bindu woon te amul carte professionnelle amul NINEA amul de commerce daa am point yu ko manqué ok maanaam bu ñuy sélectionné hmm. man ma am ko yow amoo hmm. kon xam nga juróom fukk yu mel ni yow machine bi tànn juróom si juróom fukk yi kan moo ci am kan moo am ni ne yaa kan moo am noonu la machine bi tànn ok xam nga machine moom xam nga moom dafa xereñ ci tànn. Hmm. noo ko tànnaloo rek loolu lay tànn. Hmm. mais tooguñu woon di su rocci nañ kii mooy Mamadou Seck mooy président OPA bi ko teg fii ndax moom il faut mu am. Hmm. kon bu doon loolu rek pour vous vous dire vrai. kon Mamadou Seck mooy njëkk am. wala benn téere mais ci tànn bi ci tànn bi bi ñuy joxe aide Covid 19 bi. kon ci tànn boobu. tànn boobu léegi nag. Mm. dañuy dellu si waat ci aide Covid 19. waaw bu PEJA bi laay wax nag. waaw bu PEJA bi. waaw waaw aide Covid 19 bi ñu déposé. Mm. dañoo déposé. waaw tànn gunu. Mm. Covid am. ok coow li bari. boobu sélectionné guñ. sélectionné guñ. d'accord ñu ne nag képp ku déposé woon dañ lay jox. Ah. loolu moo indi. Mm-hmm. képp ku déposé woon ñu jox la. ñu jox la cent cinquante. jël nga sa cent cinquante jël sa madaar. jox la ay madaar ay. mais boobu tànn gunu. Ah, ok. d'accord bi ñu jëlee nag bi ñu demee ba machine bi war a tànn. ci la ñu tànn ñi ñu tànn ñooy ñi doon def formation yi ñoo lañ tànn ñi képp ku ñu tànn visité nañ la sa atelier. Mhm. ñëw nañu visité say apprenti. woo say apprenti questionné leen. géolocaliser atelier bi pour pour nekk foofu sa atelier nekk. xam nga loolu lañ def ci tànn bi. man je crois que PEJA ci wàllu processus bi. ak ci wàllu tànn bi. lu leer lu démocratique kenn mënu ko ci critiquer. kenn mënu ko ci critiquer am na solo président dinañ dikkaat ci yow euh, président fi nga mujjee woon bàyyi léegi foofu euh, bëgg nañ aussi tamit nga ñëwaat ci bu baax a baax ndax dañu gis ni euh, yàggul dara matul weer wala ci lay war a toll am ay nit ñu wàccaat ci marché yi defaat beneen sélection wu PEJA. Mhm. waaw loolu ñu bari tey ji waaw xam nga xaalim loolu. Mhm. ñoom seen programme comme li Pape Ibrahima waxee rek mhm. ci diggante programme bi projet bi mhm. même bu bu fekkee ne dafa am limite tey jii un exemple boo xam ne bii moo gën a terre mhm. ci ñi ñu sélectionné woon ba jox leen mhm. tey jii am na ñoo xam ne yàlla dogal na nekkatuñ fi ñu dëddu génn àddina ci ñun lañ mën a xam ñun ñu ngi suñu biir te yow xam nga leen man xam naa leen te ci lañ bokkoon ñooñu dañ leen war a parce que programme bi continuité la dafa am lu ko tax a jóg waaw dafa am lu ko tax a jóg léegi nag noonu la mbir yi di wëree léegi nag ñoom à l'interne mm-hmm. xam nga programme bi dama rek benn waaye mu may laaj nan ma PEJA fan mooy seen bureau mm-hmm. ma ne ko bu ko lijjanti bu ko xamee dem fa de waaw ma ne ko bu lijjanti <laughs> bu seen bureau bu ko xamee dem fa de parce que am nañ adresse am am am numéro am mail parce que nit ñi tamit waaye fii la PEJA ne nit ñi dañoo soxla ay information aussi tamit PEJA ngi sàngam xëy na peut-être président moom xëy na peut-être mu xam bureau PEJA fu ne waaye PEJA moom ko Thiès moom laay wax amul ah. amul donc seen seen base Dakar la boo man Thiès danañ sonn danañ sonn léegi nag bu ñu xëyee léegi nag loolu xëy na ci ci ci ci ci ma ñu bari interpellé nañ ma mm-hmm. man laaj naa leen mm-hmm. mais bi ma leen laajee carrément c'est des enquêtes yoo xam ne yi ñu ngi koy def mais ñoon ñu ñëw seen i atelier mm-hmm. am na ñu ma ci woo sax ne ma ñun de ñëw nañ suñu atelier barki démb ba laaj ñu waaye jotaguñ machine ma ne ko nag yéen da ngeen di door a jot visite mais ñii trois ans la ñu def def ay formation yu dul jeex ba jeexal ñu door leen a jox machine léegi nag da ngeen di déglu ñoom ñu leen woowoon dina leen wowaat ñoom ñu defoon visite dina leen woowaat ba xam yéen processus bi lan lay doon parce que lan moo tax ñu defal leen enquête ak lan la dañ leen di intégrer ci programme bi am déet wala beneen programme la ci biir PEJA loolu yëpp aussi dafa nekk information yoo xam ne xëy na président. dina ci am information mais ñoom mais ñoom président ñoom dañuy wax ni bokkoon nañ ci bu njëkk ba. ñoom dañuy wax loolu de. léegi euh, visite bu mujj bi. bu mujj bi waaw. visite bu mujj bi. waaw visite de contrôle la. visite de contrôle. waaw contrôle cest dafa amoon ay rumeur yoo xam ne dañ ne ay nit ñoo xam ne dañoo ab ab atelier ñii ab apprenti. Mhm. ah mais dafa mel ni may woon nañu ab apprenti quand même. déedéet ab apprenti bokkul mais mën ngaa am sa apprenti yow bokkul ci programme nga joxe sa programme. waaye yoo amoo atelier ab atelier. Ah. ab apprenti ñoom ñoo ñëwaat sur place nag doon vérifier ndax bi bi dernière visite bi ñëwee dafa am ay atelier yu ñu tëb ñoom bi ñu demee xool seen répertoire gis ne ñii diw mi diw mi visité wuñ ko ci liñ defaat deuxième visite bi deuxième visite bi mooy xool patron bi ne ko wala apprenti ñu xool ndax les apprentis existent loolu lañ doon vérifier dañ doon vérifier mais du programme bu bees du dara ci toujours ci PCA boobu lañu ne. ci même PCA bële la. c'est-à-dire nit ñi ñoo ñoo ñoo ñoo dul wuti information. mooy loolu mooy indi problème benn PCA bi la dañ doon def visite de contrôle. ba xam ñi bokkoon ñu ngi existé. ñu ngi existé wala existé wuñu. waaw ah. apprenti yooyu ñuy wax ndax ñi ngi ci atelier yi wala nekkuñu ci. ndax bi ñu ñëwaatee dañu leen imposer na xale yi ñëw ndax xale bi dañ koy laaj day toog ñu di ko laaj muy wax ñuy bind visite bi sax boo seetloo visite bu mujj bi dafa yàgg dafa jël temps. Mm, mm-hmm. nga moo lay wan ne ñoom am na lu ñu yëgoon lu ñu doon vérifier di ko contrôler. ok waaw pour nga loo xam ne bokku ci ñu sippi ko ainsi de suite loolu mooy indi visite bi mais du PGA bu bees du inscription bu bees du dara. mais ci visite boobu ki nga xam ne moom amoon na xale bu newoon ci place euh, trois ans dafa yàgg ci projet bi parce que am duré na deux mille dix neuf. ba tey xale bi mën na fi mën na bàyyi métier wala mu toxu wala mu nekk ci beneen dëkk wala yu demee noonu xale boobu lan may euh, kii am. solution xam nga dans toute chose. Hmm. am na ci ñoo xam ne dañuy bàyyi nit ki boo bàyyee bokkutoo. boo bàyyee bokkutoo. ah waaw boo bàyyee noonu bokk ko yóbbu ci benn programme lañ la bokk. dafa mel ni nga nekk école rek. nga jàng ba mu neex la nga ne noonu bàyyi naa examen jot na damay dem defi examen mais nit ñi duñ ko nangu ndax am liñ la war a saytul jàngal la ko hmm. du mat. programme bi nga war a jàng yow du mat ci yow. Hmm. cest à nit ñi ñoo ñoo mën a caaxaan mën a fo. c'est-à-dire lépp loo leen wax rek ñoom am nga yoon woo mën a jaar pour am ci wala pexe wala nangam. Hmm. pexe moom jéem na verrouiller le maximum. du ma ne nag du ci am ay njuumte wala ay erreur. Mm-hmm. waaw te aussi woyafal na lu mu man waa waaw woyofal na de. bu mm-hmm. PEJA bu dëgëraloon. Mm-hmm. ñu bari du ñu am. waaw ndax ab apprenti yi bari na ci. ab apprenti waaw bari na ci ah. pourtant jàll na. Ah. wala gisoo lool. am na jàll waaw kon nag PEJA ah. li ko intéressé woon. mooy après ndax danga ko àbb wala àbboo ko amul solo jàngal ko mu man ndax sinon peut-être bu ko fekkuloon sa atelier Mamadou sekk bokkul xale boobu du bénéficié wu. te programme bi pour xale la comme ma Mamadou Seck bokkul mu jox la tey apprenti yow nga jël ko te pourtant PEJA nangu na loolu ba former ba encadrer xale yooyu encadrer sa atelier ba tey ji ñu mën a àgg ci finalisation. mais est-ce que xale chef d'entreprise bi nga xam ne ab yoroon na xale mu dem ba xale bi nekkut fa mu ko sens. bu am xaadim waaw. depuis euh, PEJA yàgg na. yow munu hmm. mënuñu mënuñu mun ñii mënuñu nekk ci processus depuis deux ans yow nga ñëw ren bëgg a toll ak loolu moo indi problème bi mënuñ tout le temps rek di changer tout le temps di changer d'accord parce que day fekk ñee dañ lay raw ñaari at wala ñetti at mhm. yow nga ñëw tey xam nga ñu bëgg la jëlaat donc day doon ba dootu doon lu sérieux mhm. c'est-à-dire c'est un programme premier programme bu mel nii bu ñëw ci artisanat mhm. il faut yi am ci il faut yi am ci waaw ndax moom vraiment ñu musuñu dund programme bu mel nii <laughs> am na solo président il faut yi am ci ah. mais bu newoon tey jii PJA am na phase de je crois que phase 2 boobu dana gën a leer dana gën a set. non phase 2 bi nag maa ngi koy dégg danaa ci ñëwaat. Ah, mais ñu fàttali ñi nga xam ne ñoo ñu topp ci RTT TV euh, tey ñu ngi dalal acteurs yi euh, ñi nga xam ne mooy président Mamadou Seck président regroupement des terres de la région de Thiès ak nekk ci secteur bois bi moom it di ci doyen bu am solo waaye mine secteur bi mine aussi tamit li ñuy waxtaane ñu xamal leen ni aussi euh, waxtaan wi benn point rek la muy projet PEJA. ñu bëgg leer lu lu bari li lëndëm wala ñi nga xam ni comprendre lu ñu comprendre parce que bari na ay question yoo xam ne mu ngi ci mbedd bi mu ngi ci marché yi ah, mu ngi ci garage yi mu ngi ci yeneen domaines yëpp loolu lañ bëgg a waxtaane te ñii dégg nga kii moom bi ñuy créer projet bi euh, président nee na mu ngi woon toog trois jours ñu leen koy expliquer pour ñu comprendre ko moo tax euh, émission bu bu ngeen ñu toppee di lépp dana leer euh, ba ngeen comprendre kenn ku ci nekk euh, xam ni boo jotee sa wërsëg la waaye boo jotul aussi tamit amoo ci wërsëg ñu delloo lépp ci loxol yàlla président Mamadou Seck dañuy dikkaat ci yow matériel bi dafa mel ni secteur bi nga xam ni ci nga nekk muy secteur couture dafa mel ni fan yi moom yéen a ngi yéen a ngi bëggee. Mm-hmm. waaw sant yàlla rek Khadim ndax ñoom ñëpp ñoo ndax damay rappelé waat tuuti rek. def naa ne bu fekkee ni say seeni say ojo daan nga ko denc. soo duggee ci sa groupe ci groupe whatsapp. département bi ñu ko am. tey denc archive. def naa ne am na moment bu ma ci communiqué woon. bi ci coow li baree. man leen na nañu xaar. projet bi projet bu bu buy sotti la. Mhm. du yéex nag. Mhm. du du gaaw. Mhm. waaye projet bi sotti la nañ ko xaar. Mhm. coow li bari woon na nag. waaw ba waxoon leen sax au moins fin juin juillet. Mhm. yàlla mën naa def mu sotti. Mhm. mais ba mois de janvier. tout récemment. début janvier bi. nga gis ni matériel yi ñëw na. Euh, bi ñu amee information ci guddi gi. la woo nañu nañu ñëw demee chambre à la chambre des métiers. Euh, pour une réunion. ok matériel bi agsi na réunion lañ ñu convoqué ñun. d'accord man ak madame Sow madame Sow moom moo nekk point focal PEJA. Hmm. man comme Ablaye Ngom moo nekkoon ci CRA bi. Hmm. bu bu boo doon am duñ ma woo man. Hmm. Pape Ibrahima Ndoye la ñuy woo mu ñëw toog. ok moo naan nii la ak nii la mais comme secteur couture la. ñu woo ma. bi ma ñëwee ay problème laa fekk. ay problème ay problème ndax président chambre de métier dañ koy remercier nag bu baax. ci ñaari mbir. Euh, parce que bi ñu njëkkee ñëw Pédia dañu jël yàpp seeni bagage ñoom ñoo daan dem ci atelier yi di ko yóbbu mm-hmm. duñu avisé benn président wu chambre métier yoonam nekku ci mm-hmm. mais cette fois-ci ci quatorze régions yi mm-hmm. ñu choisir Thiès ne dañuy ñëw chambre de métier pour indi équipement yi lan moo leen motiver ci loolu ba ñu mën a ñëw chambre de métier pour indi ko bi ñu ñëwee avisé wuñu la chambre des métiers ndax dañoo woo point focal bi ci guddi gi ne ko demee dañuy ñëw pour indi les machines kooku mu informé son tutelle président aussi en tant que président chambre de métiers sa biir kër lu ñu fay def dañ laa war a yëgal loolooy dëgg nag ndax ku ñëw sa kër nag moom suba suba ñëw teg fa cin teg gaz dégg na ko looy def fii wala loo xewle noonu la président def ah da ñoo da ñoo bëgg wax ne daal bi matériel bi ñëw fournisseur moom dafa ñëw rek. président salaamaaleykum bëgg ñëw rek. daal ne leen artisan yi ñëw ñu jox leen seen kii biir chambre des métiers. te président yëgul président chambre des wax nañ ko ni suba dina ñëw. Hmm. mais waxuñu ko ci yan condition ok ndax bu ñu fa séddalee noonu. Hmm. mu am ay lacune amu ci benn responsabilité. bu ñu demee seen après di naan chambre des métiers ñoo ko séddalee wala ko séddalee. bi mu ñëwee toog mu woo ma. Hmm. woo secrétaire général woo fournisseur bi. waa PEJA boobu ñëwaguñu. ña nga Dakar ñu ngi ci yoon bi di ñëw bi ñu wootee wax président ne jox leen ma ko ñu jox ko mu ne ko il faut que nga ñëw parce que lii lu sérieux la ndax au moins chambre de métier institution la war nga ko mën a bind aviser ko ne ko nangam ak nangam bi ñu toogee waxtaan ci la président daat ne li gën mooy comme dañoo ñëw nañu déposer les bagages ñu waxtaan xool ban bis la ñuy jàpp pour pour mën a joxe matériel yi. ok ndax boobu fournisseurs yi ñu ngi amaat yeneen cible ci yeneen région te bu ñu demee duñ gaaw a ñëw bi ñu waxtaanee nag comme moom c'est le président am na yenn système yoo xam ne bu ko gisee war na ko mën a wax donc mu laaj ma sama avis ma ne ko man président mu ne ma nga man ko je préfère ñu bàyyi ñu ñu distribuer les matériels. mu bañ fi fanaan pour plusieurs raisons mhm. mu ne ma bu ngeen gisee may def lii c'est pour vous sécuriser mhm. bu ëllëgee su amee manquant wala dara ñu mën a taxaw mais comme yéen a ngi fi ñu ngi fi qu'est-ce qu'on fait ñu ne ko on fait la réception tout de suite ci lañ woo ay quelques personnes morales ci regroupement bi ñu daw ñëw ay Cheikh Mbacke Mbaye ay ñoom Bafou ay Abdou Wade président commission formation bi ñu ñëwee ñu def benn petite cérémonie ak protocole def demi symbolique ak quatre personnes président dem la commission reste ñu commencé distribuer li nga xam ne moom mooy matériel indi document boo xam ne bii PEJA bi chambre de métier mhm. amu ci amu ci subvention amu ci dara président mën na ko sedde mhm. léegi bu ñu indi ay fiche yoo xam ne yi toll na ci trois cent fiches ñu ne chambre de métier na ko photocopie d'accord chambre de métier il est là pour la pour la pour pour les artisans mais loo gis dafay teg ci yoon mhm. su su ci amul responsabilité nga bëgg a ñëw ba koo liggéeyloo ba pare jël ci budget bi mu war a def ci secteur artisanat bi boo ko defaat ci lii donte ne ñun ay tailleur lañu loolu aussi day doy waar moo tax ñun ci lañ ko jël en charge ñun regroupement de tailleurs copier fiche yëpp. yombalal ko tailleur yi. xamuñu tailleur bu nekk en règle xamuñu tailleur bu nekkul en règle xamuñu tailleur bu am carte membre xamuñu tailleur bu amul carte membre ñëpp lañ boole. Ah, d'une manière générale. maanaam fayal leen seen photocopie yooyu maanaam ñu jël ko en charge. xamoo leen sax en général ñi ngeen di fayal sax. dañuy jàpp ni suñu njaboot lañu bokk. Mhm. ñu def ko. parce que defe naa ne organisation taxawaay boobu la war a am mais doo fa nekk di laaj fukki dërëm ki téeméer koo ko laajoon nit ñi jox la ko. Mhm. mais tamit eh, structure buy buy liggéey di dox. Mhm. dafa am ay yoo xam ne tamit bu ñëwee daar daar da nga ko war a régler daar daar. soo ko mënul jaratu ngay jiite. ci loolu lañ ko régler d'une manière générale bu ñu paree ñu teg fiche yëpp. contrôler ko signer ko. cacheté ko ak ci cachet wu regroupement bi déchargé ko parce que département boo dem cachet wu bi dafay nekk wala représentant wu bi. bu fekkoon menuisier la Pape Ibrahima Ndoye mi mooy cachet mooy signé comme ñun OPA organisation professionnelle la ñu ñun ñoo cachet ñoo signé. ñu vérifier ko de benn benn. mais vraiment collaboration bi. fii si nu ñu ci mën a comprendre fii si fii la fii si. fii si décharge la. décharge bi la bi la. Hmm. parce que fii si boobu mooy permettre muy muy muy PV bi. ok mooy PV wu livraison wu. parce que kii livre day yor bon. day yor bon mais y une PV boo xam ne bii c'est signé par la chambre de métier. signé par ak PEJA. Hmm. représentant bi. Hmm. membre bi hmm. fournisseur bi. ok ñooñu ñëpp ay signataires lañu. ku nekk signé. bordereau de livraison bi bordereau de bi boole ko ci. Hmm. PV boobu moom la ñuy jël bàyyi copie bi fii au niveau de la chambre des métiers. ñun fexe nañ ba xëy na yeneen région yi mën naa am amu ko. Hmm. mais fii au niveau de la chambre de métiers képp ku fi jot machine. am nga copie boo xam ne bii bi nga déchargé mi ngi fii pour bu dara amee hmm. ñu mën koo saytu beneen bi ñu yombal président foofu est-ce que du honneur ci chambre bi parce que gis nañu yeneen région yi lu mel ne Dakar euh, da ngay gis oto bu daw ba ci benn euh, chef d'entreprise taxaw euh, wàccee wàcceel ko ay bagage am jox ko daal di dem mais honneur la ci chambre métier waaw honneur la ci regroupement bi honneur la ci membre bi ok parce que tey jii li ñu def nii ñun région de Thiès hmm. loolu mooy yoon hmm. moo jaadu. moo war a am ci raison yëpp. parce que tey jii réglé nañ problème yoo xam ne bu fekkoon da ngay dem ci atelier di ko fa teg. Mm. duñ ko mën a regle mm-hmm. dangay dem wàccee. Mm. su su soo jemee jàll ñun la noonu li nga ma wàcceel matul. Mm-hmm. wala li nga ma wàcceel nangam fournisseur bi wàcce na ay machine livré ko mu ëpp. Mm-hmm. livré na ay machine mu ëpp ñu delloo ko ko. ok livré nañ ay machine waroon joxe piqueuse yu ndaw. ñu joxe piqueuse yu mag. cinq mën naa ci tey sëriñ jiite. juróomi machine yu mag. ñu waroon koo jox juróomi ndaw piqueuse. ñu yu mag. da ko delloo. yi président boo ñu ci doon dikkalaata naka la demee parce que da ngay gis ku ne kii nii piqueuse laa soxla kii nii. Eh, industrie laa soxla waaw benn waaw. lien lañ lay envoyé. Hmm. lien bi dafay am. bon de commande bon yëpp am catalogue. catalogue hmm. bi hmm. da ngay gis machine bi am nga day rëñ. waaw même boo jàngul boo gisee machine bi da nga gis machine bi gis prix xaalis bi. waaw ci suuf. nga daa di nga daal ne bii bëgg naa ko nga nga bës. bu dee benn la da nga bës benn yoon mu bindal la un. bu dee deux fois la nga bës bësat mu bindal la deux soo juumee am na fu ñu lay permettre nga mën a annuler reprendre aat soo juumee su xaalis bi ëppee du jàll. su ah, manqué su ëppee un million su ëppee un un million cinq mille. Hmm. du dem. d'accord logiciel bi da koy bloqué. mais su manqué nag. day jàll. su manqué day jàll. su manqué 5000 su manqué 1 million. 1 million mu manqué 5000. Hmm. day lu mu manqué ci 1 million bi day jàll. ah da lay remboursé 5000. déedéet bi am remboursement mais nag. am na ah loo mën a jël. am na loo mën a jël ba mu yem ci 1 million bi xëy na da ngay fekk mu bañ laa gënal. Hmm. waaye am na nu ñu koy réglé ba 1 million bi moom. day mat sëkk ak barke. mais 5000 5000 bu fa baree. loolu ah, xaalis waaw loolu nag xam nga système la yow yaay tànn. dañ laa defal boo xam ne bii di nga mën a jël ba 1 million yu mat. Mm-hmm. am boo xam ne bi da ngay jël 1 million yi des 15000 am boo xam ne da ngay jël 1 million yi des 5000. Mm-hmm. ñi ëpp nag bi ñuy jël 1 million lañ jël ak bi manqué 5000. Mm-hmm. moom laa ci gis lu ëpp. am na ñoo xam ne ñu ngi doon wax naan dañ leen jox seen 5000 ñu mën cee sax def transport. waaw am na ñu doon wax. loolu mais mais xaalim loolu daal boo ci gisee. Mm. d'une manière générale mm. niñ ko organiser nii mm. vraiment man moom am naa ci satisfaction la chambre des métiers aussi am na ci satisfaction parce que chambre des métiers taxaw na ci aussi taxawaay boo xam ne bii day wane ni maanaam lii mooy taxawaay bi mucc ay bi ñun aussi tamit permettre nañu euh, nit ñëpp ñëw jël si seen matériel ku ci am réclamation ñëw ku ci am bon de commande am erreur ñu mën ko régler sur place. mais imaginez bu ñu ko doon livrer à ñëw livrer dem mais président réclamation wax léegi seen i matériel seeni i ah. commande matul man moom réclamation ñett laa ci dégg yoo xam ne wax naa ko ci groupe whatsapp bi hmm. ñaar ñu jox table piqueuse waroon lan jox table table vin yi. non première. ak ak ma ñëw ma ñëw. ak ak koo xam ne dañ ko waroon jox hmm. ay machine pédale am yu ci manqué ñett yooyu laa ci gisoon réclamation beneen bi ci des euh, certaine day Rama Diouf hmm. wax dëgg yàlla. parce que euh, ku dee ak sa bàmmeel xam nañ ko ci taxawaayam xam nañ ko ci jub xam nañ ko ci dëggu. dara ma juuf mais erreur bi am moom ci commande mooy bi ñu ko joxee première fois ba di coché en rouge li la manqué moom bi muy yóbbu xëy na xoolul bon de commande am hmm. bi mu demee bay jël si deuxième retour bi ci la déclaré ni man benn machine lañ ma joxoon bi ñu xoolee fiche bi ñu bind ci ok en rouge te moom moo indaale kayit bi léegi nag loolu indi confusion entre. fournisseur bi ak moom fournisseur bi nag ci la ne loolu du neex régler il faut que ñu bàyyi ba pare ñu xool mais en attendant lii sax xëy na am na ci benn moo déplacé bu mu jotoon wax ba ndaw ci gis boppam mais après recadré waat nañ ko. Mm-hmm. mais encore une fois ñi ngi ci waslu ak. Mm-hmm. parce que moom it wax dëgg yàlla erreur moom man mën naa am erreur parce que ni ni nit ki defee erreur ba livrer lu ëpp ñu delloo ko ko mm-hmm. mën naa def erreur comme livrer lu manqué. comme si ni nag sunu mbokk tey wax naa ko dem ci groupe bi mën nañ leen livrer leneen ñu ñu ñu ñu ñu tëdd ci. ne pet. te nee naa leen affaire bi dafa am contrôle parce que rumeur yi may dégg rek jot naa ci information ni am na comme par exemple li daloon Serigne Jité maanaam jo war laa jox machine yu ndaw jox la machine yu mag. donc am na ñu ciy gëstu erreur yooyu nu mën a amee. parce que boo yoree sa bon de bon de commande xam nga kees yi ah, dañoo nuroo ah. boo ko tegee ñooy tolloo. mais différence bi mooy bii dafay ànd ak moteur bi ci biti bee moteur bi dafa nekk ci biir. tant que daaj ko doo ko xam moo tax ñu beroon machine yi. mais boo yi génne bagage yi. man nañ koy jaawale dañu diri noonu teg nga diri jaawale ñaar yi ak ñii loolu mooy indi erreur yi mais nag de ce fait ni wax nañ ne ñun képp koo xam ne kii jot nga loo war jot delloo ko hmm. koo xam ne kii jot nga lu manqué dinañ ci xar suñu tànk tubéy ba nga ba nga ba ñi nga xam ne dañoo jot lu manqué parce ñi ngi wax ne seen chiffrelage ñëw non chiffrelage yi du manqué c'est-à-dire manqué wu chiffrelage bi ñuy distribuer deuxième phase bi fañ toog hmm. suffrage euh, yi agsi na ci dépôt bi Dakar HLM femme bi woote ne nañu yàpp suffrage pour mën ko indi Thiès pour jël matériel yi des waat ko waa Mbour di woote ñu coordonné chambre métier ñu ne kon nañ bàyyi suba samedi bi ñu dem mbuur livrer seeni machine lundi ou li ñoom sax du ñu ñëw dañuy yàpp nombre suffrage yi ci machine ci oto indi ko jox ñu PV de décharge bi ñun ñu livrer ko membre yi kon ñu jàpp ne seeni machine piqueuse ñuy wax à l'instant mi machine yi ñëw na te incha allah lundi ou di dinañ ci jot. ok mbuur pour doon la firnde rek ni mbuur matériel complet lañ jot parce que bi ñuy dem mbuur samedi fekk na chiffrelage yëpp ñëw hmm. te ay la yéwén nag boo xoolee machines yi nga gis ko nii en qualité machines yi ngay gis. Hmm. muy machine yoo xam ne yi hmm. Nova Trading hmm. ay la yéwén nag président gis na ko ah Babacar nga wanaale ñu machine yi ñu gis ko ci image yi boo ko gisee hmm. da ngay gis ne machine yi ay machines yu mucc ayib la ay machines yu mucc ayib la c' est de qualité ay machines de qualité la sew-sew bi ci am rek mooy am na certain tailleurs yoo xam ne yi ñëwoon nañu te ci programme bi lañ bokk mais jotaguñu seen machine mais dafa am ñaari fournisseur yu yor ay tailleurs man je l'ai appelé directement ba jot ko ñun am na ab groupe tailleur bu ñu yor mais dañuy yónnee carte d'identité yi ñu vérifier leen parce que am nañ ay tailleur mais dañ cee jubloogul dañu nekkoon ci horticulture bi mais pare nañ ci horticulture mais tailleur yi ñu yor bariwul waaye dinañ ci jublu kon ma jàpp ni am na certains tailleurs yu nekk fii parce que am na ko ma ko ci woo ne ko diw tur diw mu ne ma diw moom ma ci ñun ñoo ko yor kon jàpp naa ne ñeneen ñi madame Sow bind na ko en réclamation transmettre nañ ko waa ji ndaw si dina ko vérifier ci ci fournisseur bi nga xam ne moom la ko. kon gars yi mais ñooñu ñu ngi ak seen i bon. ñooñu ñu ngi ak seen i non non c'est-à-dire ñoom dañoo gis bi ñuy def bon. Mhm. waajee génneegul ay bon. ah génneegul ay bon pour yónnee ko ñooñu. d'accord léegi ñii dañ leen transférer lien. Hmm. lien bi lañ dugal ci groupe bi. Hmm. ñoom ñu récupérer ko inscrir hmm. dugg ci plateforme bi. d'accord boo xoolee plateforme bi dafa amoon système de piratage. mooy man gis naa koo xam ne kii sax ñëw na ma laaj ko ndax ci nga bokk mu ne ma ma mais damaa bëgg nga inscrire ma rek ma xool ndax dina jàll ma ne ko non man du ma ko def hmm. moom mu dugal boppam mais en retour yónnee wuñ ko yónnee wuñ ko bon hmm. kon nga xam ne système de piratage bi moo dal mbuur mbuur bi ñu ñëwee dañoo le vendredi le jeudi dañoo changé dañ leen woo benn par benn ñu changé seen bon de commande yi looloo taxoon bañ fa demee amul yenn jafe-jafe hmm. yenn erreur yoo xam ne am na ko ci. kon daal affaire bi xaadim am na solo. Mhm. distribution bi am na solo. Mhm. nii ñu ko stocké ci chambre de métier bi aussi am na solo. Mhm. ba ñu teg ko ci liggéey boo xam ne bii man moom vraiment bi ma paree. awuma ci. waaye day mel ni am naa ci. Ah. parce que bu ko sax njaboot amee. ah day mel ni yow yaa ko am am na solo bu ko sa njaboot amee day mel ni yaa ko am ah, am na solo président Mamadou Seck xam naa ni ci ah, waxtaan wu mujj yi ah, dinañ dikkal ci bénéficiaires yi ñaata lañ lim bi nu mu toll ak ñi nga xam ni ñoom des nañ ci beneen fournisseur bi buñ ko mënee xam nombre bi lu ci xam mu mën ñu ko ci wax mais président Pape Ibrahima Ndoye seen secteur yéen yéen a dégguma ci dara ci yéen. waaw ñun de façon. damay dellu si un ci Mamadou li mu wax. Mm-hmm. muy ci fournisseurs yi. Okay. donc jënd matériel yi dañoo lancé appel d'offre. Mm-hmm. entre euh, soumissionnaires yi gagné. Mm-hmm. donc téer yi mën nañu am ñaari fournisseur wala ñetti fournisseur mm-hmm. mais fournisseur bi mu bi bi doon joxe keroog. mu ngi jox ñi nga xam ne ñoom la jëndal. d'accord et je crois Mamadou li mu wax formule bi mu wax. moom la sembre bi retenir. ak association téer yi. mooy bi gën mm-hmm. ndax bu ma fekkoon sama atelier tey mu am manquement ñoom ñu dem aw ma seen numéro téléphone aw ma seen adresse amul seede mm-hmm. te man gis naa Mamadou foofu la taxawaayam mm-hmm. benn par benn cas par cas du di ko régler waaw léegi bu ñu ñëwoon sa atelier nan la ko Mamadou defee kon loolu mu di ko superviser benn ku ku manqué moo xam ne manqué nag ku jël moo xam ne jël na moom moom doon seede ku am problème mu seede na mu koy lijjanti. loolu mooy avantage bi. mooy avantage yu. bi. à la chambre de chambre de métier nag dana am avantage bi am na tuuti conséquence ndax bu paree yaay transporter sa bopp. mais transporter ñu may la un valeur u un million nga transporter deux mille francs wala trois mille francs man jàpp naa ne loolu méttiwul. méttiwul waaye. waaw rawatina nag ñu jox la loo xam ne man du ma mm. mais xool naa qualité table. gars yi qualité machine bi rek lañu xool. waaw mais da ngay xoolaale qualité table bi. waaw table bi non seulement am na qualité. Hmm. machine yi am na qualité. ok man jàpp naa ne c'est des machines yoo xam ne bu ci nit ñi toppatoo. Hmm. am entretien. Hmm. machines yi mën nga ci liggéey à vie. ak schéma détaillé. lépp luy pièce ci machine bi dañ koo détaillé war nañ la ko ci schéma benn par benn. ba machine bi yépp mat ba table bi yépp mat. donc loolu manuel yooyu aussi il faut nit ñi di ko garder pour machine yi bu amee problème ñu war ko réparer. Mhm. teg amul benn matériel benn euh, machine bu ñëw te àndul ak schéma. et c' est important. Mhm. beneen bi mooy bi malaaj mooy pour menuisier yi. Mhm. je crois que fii ñu toll ci Thiès. téer yi rek sur les douze treize quatorze euh, corps de métier. téer yi rek ñoo jotagul. ñoom rek ñoo jotagul. waa kon seen fournisseur mu ngi leen di livrer. d' accord. gunu nag ndax ñoom ñu ne ak ñoom ñoo bokk fournisseur wala de mais ñun. Hmm. ñun ñëpp jot nañ suñu bon suñu suñu suñu suñu suñu facture. d'accord ndax avant ñoom ñuy ñëw. Hmm. dañuy defar facture bi. Hmm. valider ko. ba nga valider ko ñu xam ne ñun bu ñuy ñëw cees Ibrahima Ndoye lii ak lii ak lii ak lii lay am. moom lay am. Mamadou Seck lii ak lii ak lii ak lii la commande. loolu la ñuy chargé livré ko moo tax. bi ñuy joxe du am dañuy jël bon commande bi mooy bi nga xam ne moom validé woon nañ ko ñu ne ah kii ne ñaari machine am ñetti machine am na ci ñoo xam ne cinq machines ñu la génn cinq piqueuses jox loolu moo indi nag distribution mais kees yi nu mu niroo noonu am na tuuti erreur bu fekkee ne li ma dégg ci euh, surfleurs yi mm-hmm. surfleurs yi ñoo ñëwul Mhm. mais sinon gars yi jot nañ seen machine yëpp ah. te loolu comme ñëw na donc dañ ko jot suba wala gannaaw suba. au plus suba wala gannaaw suba. dañ ko libéré ah. parce que aussi très clairement. Mhm. li ñu jotul ku si ne dañ ko baa dañ ko marqué ci sa ci sa bon. ah liñ la jox ci sa bordereau. waaw ah, liñ la jox dañ koy marqué yaa la joxaat ne la téye ko. Mhm. pour ëllëg si biir ñëw di jël nga indi ñu xam ne kii manqué woon na lii. loolu bu bu réeree nag. ah bu réeree yaa tooñ. ah bon bu réeree ah, duñ la jox bu la joxee ko. bu la joxee so bancaire moo la bindalee chèque jox la. waaw ne la bu subaa demal banque. réeral la chèque bi. waaw su ma ko réeralee ñëw ni la réeral naa ko président sama chèque yi jeex na. a ah bon léegi def. amul solution déet mën naa am solution waaye man moo la ne sama chèque yi jeex na yow nooy def. ah xam naa parce que chèque bu xaalis waroo ko réeral rek moom xaalis. <laughs> mu ngi noonu bon bi nga xam ne yow moom nga war a jëlee say machine. Ah. waroo am càggante di ko réeral rek. war ko am sàmm ku am sa bon da nga ko bu baax. bu réeree rek denc bu baax waaw dégg nga da ko lekk ak. waaw mu ngoog dafa ko tegoon fi wóorul. téyel rek bu dëgg denc ko te fonk ko xam ni euh, lu am solo la état du Sénégal jox ko euh, artisan yi mu ngi noonu xam ngeen ni euh, du téyeer yi rek ñoo nekkoon ci projet bi téyeer yi rek ñoo bénéficié actuellement waaye yeneen corps des métiers aussi tamit comme ni ko président waxee am na ñu ci lim ci début émission bi euh, ni ñoom ñëpp ci lañ bokk ci sélection bi lañ bokk ñooñu tamit aussi nañ xaar euh, comme ni mu ko waxee ñoom ñu ci ëpp jot nañ seeni i euh, facture kon li des mooy ñu indil leen seeni i bagage kon mu ngi ci kanam président lan ngay dalal xel ñi nga xam ni jotoon nañ benn information ni projet PEJA bi jeex na depuis mois de décembre. xam nga rumeur. déggawuñ mm-hmm. ko mooy rumeur. rumeur la woon. te ci PGA bi. dafa am ñoo xam ne lépp luñ ciy def dañ ko yëg. bu ñu waxtaanee waa ñii indi projet yi. dañ leen di laaj ñoom ci yan cible la ñuy jël cible. yan corps de métier bu ñu xamee corps de mm-hmm. métier bi ñu laaj leen projet bi nu muy tëddee lan mooy seen budget. ci lan ngeen di financer. ci lan ngeen di yëngu. ci lan nag lan nag lan ak lan ak lan ak lan ba xam loolu léegi ñu soog a xam kañ ngeen yenn phase ngeen di démarrer nuñ koy defee léegi nag ñu nit ñu soog a dem ci ci njaboot gi wax leen ne ah lii ñëw na préparé wu à ça kaay leen bintu kaay leen nangam man quelque fois man may déplacé si ma ndax souvent projet du ñu jox moyen yooyu yaay jël sa crédit bopp yaay jël sa moyen nga déplacé nit ñi kenn par kenn ngay expliquer d'accord quelquefois sax bu nit amul xel. Mm-hmm. danaan kii jël oto bi taal ko def ci essence di wër nii. Mm-hmm. bu ci amuloon intérêt di ko ah, def. am na lu ci yàlla xam ne ne. Mm-hmm. amoo ci ñaari dërëm. mais président yow li daal Seck mbaa dalu la parce que président Seck moom amul ci bagage yow maa ko ah moom <laughs> yaa <laughs> man kay damaa seetlu jëkkër yu njëkk sama ah tur ca ah, neex na président Seck moom maa ko dàq li jënti <laughs> président Ndoye moom bokk na ci ñi seetlu mais président Seck malheureusement coono bi mu ci daj yëpp euh, président Abdoulaye Ngom ba ci estafam ma dégg naa dégg naa estafam Nene Diakhaté Abdou Wade ah ñoom lañu xaar Fall Ibrahima Fall ak Khadim Soumaré amul de day moom xaw ma bu njëkk ba dañoo dañoo dañoo temps bind nañ am nañ ci cent bi daal lañ bokkul xam ah na président xanaa loolu yaa koy yaa koy laaj ay question ma leen xaar leen rek ah, programme bi si seet see déglu leen ñoom laaj ñu tontu laaj nañ leen tontu leen rek. li leen laaj critères yi ngeen tam toog xaar. si tontu nañ ko voilà waaw mais nag man ñëwaguñ ci man nañ ñëw ci man. wax naa ne projet yi moom boo may dul bu ñëwee rek dama naan leen garaawal na gaa yi bindu parce que da ngay bindu te mooy loolu président Seck. Mhm. Euh, ci nombre bénéficiaires yi ci wàllu couture bi. xam naa foofu sax la ñuy euh, mhm. waxee kàddu yu mujj yi. Euh, bu ko defee message yi nga xam ne yéen tamit war ngeen ko lancer ci état bi parce que faaw na ngeen lancer benn message fort. remercier état loolu moom xaw ma remerciement lay doon xaw ma nu ngeen koy tuddee yéen a xam nu ngeen koy tuddee parce que dégg naa membre yi di leen remercier yéen yéen chef chef d' organisation yi ah président yi surtout président Seck moom temps yi moom tonton Seck ya xaw ma nan koy wayee la noonu waaye yu ne lay dégg rek ndax lan taxawaayam waaye xaj na euh, li mu am ci ay euh, ci ay euh, opportunités yi nga xam ne indil na ko secteur bi xañ na aussi tamit am na ay démarches yu ko yombalal à part boo ñu ñëwalee ci question bi bénéficiaires yi ni mu toll ñu bàyyi la nga lancé. waaw bi cinq cent cinq cent deux personnes lañu. cinq cent deux personnes. ci Thiès ñi nga xam ne ñi nga xam ne waaw ñoom région bi. région de Thiès région bi waaw bu dee couture. Mm-hmm. waaw ci foofu lañ foofu lañ muy nombre boobu. Mm-hmm. boo xoolee mooy nombre bi nga xam ne moom la ñu am ci région bi donc loolu aussi tamit dafay mel ni yàlla dimbali nañu ba euh, nombre boobu ñuy wax. Hmm. nombre bi mooy. mooy mooy cinq cent personnes. cinq cent personnes cinq cent deux personnes. waaw ñooñu hmm. boo dee xool hmm. à part Mbour. Euh, benn réclame ñaari réclamation yoo xam ne ñi dañoo gisul seen tur. d'accord ci ci ci programme bi mooy ñu ma la wax ni la ñoom bëgg nekk ci beneen fournisseur bi mhm. fii ay six ou sept personnes yoo xam ne identifié nañ leen mhm. ñoom ñoo ci nekk programme bi daal nekk na programme bu am am solo mhm. te yàlla dimbali ñu taxaw ci ba li ci ëppoon solo jàll na ay réglage yu ndaw la mënul ñàkk nag ci programme mais nag yàlla dimbali nañu fournisseur bi mu neex a waxal jafe-jafe boo xam ne bii am nañ ko ci programme bi rek waxtaan nañ ci te noonu nañu ñaaneen aussi euh, yeneen corps de yi ñoom it ñu jot seen matériel te bi ñu jot seen matériel mm-hmm. noonu la ñuy ànd ak ñoom mm-hmm. accompagner leen ba ñu jot seen matériel parce que tamit euh, secteur bi du tailleur yi dañuy jot seen matériel rek tax ñu xóob mm-hmm. waaye nag ñoom ak ñeneen ak ñeneen ñi war a jot ñëpp jot bu ko defee secteur bi moom dañuy wax beneen programme waaye programme bi daal en tout cas am na solo lool lool lool ci secteur artisanat ndax bokk na ci luy développé suñu mm. liggéey. Mm. luy développé liggéeyu ànd bi lu Pape Ibrahima wax na ko léegi. Mm. Euh, bulus yi tey jii. damay wax ne bu génnoon. deuxième phase bi deuxième phase bi bu génnoon. ba tegee ci loxo tailleur yi tey jii. waxuma la ñaw bu gën a set. waaye commande di nga gis ku dem jëli juróomi tailleur teg. yor sa kër. ak sa waa kër ñu ci jàpp pour liggéey bi mën a mën a mën a mën a mën a jaar yoon. te di nga mën a gañe Mhm. kon loolu aussi dafa nekk liggéey liggéey bu am am solo. boo état daal fi ne nii mu ngi leen di taxaw bu baax. Ah. waaw li ñu mën a jàpp daal mooy état fi mu ne nii taxaw na secteur artisanal bu baax a baax a baax. Ah, euh, président xam naa ci euh, catal waxtaan wi rek dañ leen di bàyyi nag euh, ngeen def xaw ma nu ngeen koy tuddee remerciement lay doon xaw ma parce que li ñu remarqué daal mooy macha allah secteur artisanal mu ngi dund. Mhm. Ah, état du Sénégal mu ngi ciy jàpp mu ngi leen di. permettre ay formation permettre leen aussi tamit euh, ay ay ay matériel yoo xam ni dina tax seen entreprise gën a développé wu loolu xaj na am ngeen ci ay sentiment waaw vraiment ñun daal dañuy sant rek bu baax euh, le li ñu sant état du Sénégal ci projet bi ak programme bi mu indi secteur artisanat di ñaanaat aussi mu gën a dolli ci secteur bi parce que secteur artisanat yu mel nii rek moo koy développé ay programme ak i projet mm-hmm. mooy tax mu développé mais bu dee ñun toog di xaar client wala tey wala nangam mm-hmm. loolu amul solo mm-hmm. mais li gën a am solo mooy fexe ba yokk suñu liggéey ci marché accès marché public accès au financement accès ci projet yi nga xam ne moom mooy moom mooy mooy parce que du métier yëpp nag ñoo am chance boobu toujours aussi yeneen corps de métier yi dafay fekk ni euh, ñun métier yooyu ñu corps de métier yooyu ñoo ci ëpp ci ci ci bénéficier wu ci secteur artisanat mais am na d'autres corps de métier parce que y a cent vingt six corps de métier mhm. kon dañuy ñaan ñu gën a dugal seen loxo ci yeneen corps de métier yi ba kenn ku nekk gis ci boppam comme ni ci pro programme PEJA bi ni ak yeneen ak yeneen ak yeneen mhm. parce bu ñu ko dugalee ci secteur bi daal dina am solo di remercier ñi ñu ci àndaloon ñëpp di remercier davantage président Abdoulaye Ngom mhm. ci ànd gi mu àndoon ak ñoom Pape Ibrahima Ndoye ci CRA bi ba tey daf ñu ñëw ba réaliser ko di ko sant di ko ci gërëm di sant képp koo xam ne kii bénéficier wu nga ci yàlla na doon sa njiglaay amiin lim ci fas yéene def yàlla na doon liggéey bu mucc ayib waaye li mu leen dénk encore une fois hmm. matériel bi du matériel bu ñuy jaay du bu ñuy jaay hmm. matériel bi dañoo signé un contrat. nee naa leen mais président lu tax ngay xalaat matériel bi nekk matériel bu ñu a. non dañ koo signé dañ matériel. Ah, bu ñu naa ci loolu mais. nit ki ñu nit ki ñu may matériel man ah. Khadim Soumaré ñu may matériel. boo xam ne soxla naa ko pour liggéey. mu retourné waat di ko jaay. waaw dafa am lu tax ñu jox la ko nag. li tax ñu jox ko yow yow Khadim Soumaré kese. ok parce que bi dañoo bind Khadim Soumaré ak ñaari apprenté wala ñetti apprenté mhm. moo war a am lu mu def ci ñoom waaw ñuy bañ muy jéggaani ay machine wala di indi machine yu bon duñ ci mën a ñëw wala duñ ci mën a mu indil la nouvelle technologie dernière génération tegal la ko pour sa liggéey gën a mun ci ayib mais loolu nag naka laa mën a tourné du ko yow lii ñu la def nii eh. waaw non am na déjà li ñuy wax nii am na ñoo xam ne ñi avant ñu jot machine rek ñu ngi xalaat jaay <laughs> ah bon waaw eh, ma ne leen machine yii du machine yi ñuy jaay dafa am suivi dafa am suivi am na suivi programme bi am na suivi eh. danañu wàccaat ci terrain bi hmm. ñëw xool si machine yi hmm. xool naka ngeen toogee xool machine yi ban ak ban lañ la joxoon ak biñ la ko joxee lan ak lan nga ci war a def parce que dafa am lu ko tax a jóg am lu ko tax a jóg wax naa leen ko kuy jaay jaayal say ancien machine yaa ko moom mais yii it yaa ko moom waaye nag dafa am ci lu tax ñu jox la ko léegi mission boobu ñu tax ñu jox la ko nag soo ko matalee ba pare mhm. waaw loolu nag contrat bi jeex nag bala neexee nag ay la yoon après mais dafa am lu tax ñu jox la ko boo tëddoon sa kër di nelaw uh-huh. demoo formation encadré wuñ la laaju ñu lay apprenti. duñ la jox la yoon kenn la joxe machine. dëgg la leer na. ah leer na président ñu bàyyi la nga nga tàggatoo. sant rek ah. sant gërëm. Ah. remercier Pape Ibrahima bu baax. Ah. remercier les artisans remercier l' ensemble euh, ñi nga xam ne ñoo ci nekkoon. Mm-hmm. vraiment di leen remercier di leen sant di leen gërëm rek. Mm-hmm. di wax ne kontaan nañu encore une fois. Mm-hmm. te ñun ci loolu rek la ñuy dox. waaw ci loolu la ñuy dox incha allah comme di wax tey rek programme formation ADPMA bi comme loolu la rek. Mhm. ADPMA sunu machine yi ci kaw ñooñu ko joxoon. Mhm. kon am nañ benn plan de travail bu ñu war a def ñoom ci wàllu formation digitalisation gestion ak yeneen ak yeneen. Mhm. ak accompagnement. donc une so nombre de trois cent membres. Euh, ci région bi loolu incha allah convention bi signé nañ ko ba pare. ba yónnee leen ko daanaka validé nañ ko ba mu jàll. donc li ci des rek mooy mise en œuvre bi incha allah. Euh, ci kanam fii ak peut un mois wala un mois et demi. Mm-hmm. formation bi ak programme boobu moom incha allah dina commencé. dina tàmbali dina tàmbali. am na solo ñu jaajëfal ko bu baax président Mamadou Seck dégg ngeen waxtaan wi euh, li ci feeñ bari na defe naa ñi amul woon lu leen leer ñu ci bari tey am nañu lu leer ndax jotaay bi euh, li mu feeñal bari na euh, président Pape Ibrahima Ndoye doyen ñu ngi lay jaajëfal dina la bàyyi nga def kàddu yu mujj yi. waaw sama kàddu yu mujj yi daal mooy gën a encourager artisans yi. Mm-hmm. ñu gën a taxaw ci liy ñëw. Mm-hmm. xam nga Momadou nee na téere yi. Hmm. téere yi favorisé wuñ leen de. ah bon hmm. ah nee na cinq cent et quelques téere laaj nag laaj nga ma ñaata menuisier am. waaw waaw ah, menuisier yi matuñu quinze. matuñu quinze. matuñu quinze te amul kenn ku ñu waxoon ne. yaa ci bénéficié wu matul quinze ku gën a farlu rek yaa ëppale. cela veut dire peut-être téere yi hmm. déposé nañ peut cent dossiers. pour ñu jël ci cinq cent. d'accord. menuisier yi matuñu quinze. Oh. menuisier métal boo ko xoolee matul xaw ma dix-sept ma douze. Ah mécanicien yi xaw ma Mhm. téer yi comme ñoom ñoo nekkoon ci marché yi. Mhm. ku jot jottali sa morom ku jot jottali sa moroom bu demul ñu la demal moo tax ñu am nombre bi du faveur de. d' accord du faveur de. ñoom dañoo gën a véhiculer information voilà du faveur. d' accord donc menuisier yu mënoon nañoo doon mënoon nañoo doon minimum cent. photocopie sax la ñu yoroon ñun teg ko. waaw kon ci place bi. du faveur kon mhm. organisation bi ni mu liggéeyee ba mën a am cinq cent yu am. déjà rek ndam la. am regroupement bi taxawaayam moo tax léegi léegi boobu borom téyeer cinquante ngeen am kon xanaa kon coow li dina gën a bari waaw mi kon nit ñi nañuy déglu seeni i tutelle seen i kuréel li leen di wax muy seen njariñ ñu di ci taxaw gannaaw loolu it dañuy gën a sant daal di gën a ñaax artisan yi hmm. pour vous diir que état li mu waxoon def na ko hmm. ndax gaaw na wala yéex na wala def na te li njëkk a génnagun ci matériel. Mhm. qualité la joxe. ñun jotagun. ñeneen ñu jotagun te ñëpp dañoo waxoon ne. Mhm. li ñu jaay cher na pakoti la. waaw mais bi ñu ñëwee bi. téer yi moom moom li ñu am bi ñu ko ubbee du pakoti. sous-facturation kooku moom képp ko am. man nga wax cal aqulaay taalaane jox nañ la lu baax lu am qualité. Mhm. ñu nit ñi ngi ñaan bu suñu bos di ñëwee ñu am qualité. macha ndax. bi rumeur yooyu amee dañoo yëngalaat PEJA pour ñu xool li ñu njëkkoon indi ndax méngoo na dañ ko joxoon sax ay yenn artisan yu nekk Dakar ñu essayé ko loolu moo indi tey qualité yi moo tax nit ñi aussi bi ñu waree wax wax nañu bi ñu waree jóg jóg nañu bi ñu waree def def nañu. d'accord matériel bi aussi li ci président moom du wax moo am. Hmm. convention lu ñu signé avant ñu ñu koy jox. kenn du ko jaay déedéet. bu doon loolu koy ñu ko jox kon ñu joxoon ñu xaalis bi ñu réglé ci suñu problème. gars yi bi kenn du ko jaay de. pour ñu pour ñu dundal ci suñuy. Ah, ci <laughs> leer na de. formé ci xale yi. waaw parce que aussi xale bi da ko jox ko machine bu performant mu ci ci jàng day gën day gën a gën a baax ci moom loolu tax ñu jox la ko. dëgg la te je crois que loolu aussi ñun dañu ci war a dimbali programme bi ba heure bu ñëwee di évaluer mhm. mu ñëw fekk ne ah kii day mérité na jox li lii ma leen ndax xamuñu lan mooy nekkaat ci gannaaw ndax toujours programme day am toujours lu nekkaat ci gannaaw dëgg la kon daal pour vous dire que daal nañu gën a dolli góorgóorlu uh-huh. ñun nag ñu ngi fii di leen accompagner le temps bi ñu desee kas néew ci artisanat uh-huh. di ànd ak yéen di leen accompagner uh-huh. pour conclure peut-être sant aussi l' état du Sénégal ci taxawaay bi mu taxaw parce que moo ñu njaboote bu ko deful woon it kenn du ko sikk mais bu ko defee it dañ leen di jëfal di leen sant di leen gërëm di ñaan aussi ñu bàyyi xel ñi ngi xam ne amagunu ndax programme bii ñu wax tey programme pécha yàlla programme réparation table banc cent cent mille table banc kooku presque menuisier métallique yi la ak menuisier bois un milliard huit la yooyu daawul am. marché blouse trente milliards di dix milliards par année. deuxième phase bi ñu ngi koy xaar nag. waaw mi kon. Mhm. état mi ngi def daawul loo xam ne daawu koon def. te nit bu fekkee ne mi ngi def te loolu muy def. koom lay jur. Mhm. bu juree koom day feeñ ci ñun feeñ ci suñu njaboot. kon ñun loolu dañ ciy sant dañ ci gërëm. macha allah di leen wax ne daal ñun loolu ñu ñu defal. Mhm. bég nañ ci. suñuy njaboot bég nañ ci suñuy famille bég nañ ci suñuy dëkkandoo bég nañ ci mm-hmm. mu doon loo xam ne nag dañ koy gën a yaatal mm-hmm. ndax daanu dajul suuf mm-hmm. bu cinq cent te jotee am des peut-être des na deux mille yu jotagul yooyu ñu bàyyi leen xel ba que programme yi ñu mën ko gën a taxawal gën ko mën a wéyal ba nga xam ne daal nit ñi ci li ñuy liggéey dañ gis au moins ku leen gunge dañ gis état ci seen wet dañ gis chambre bi ci seen wet dañ gis tutelle bi ci seen wet bu ko defee ñun danañ gën a ñeme mhm. pour mën a gën a dem ci kanam mhm. encore une fois di am contentement toujours di dellu ci ci télévision bi di ci am sawarte Mm-hmm. di sant encore encore euh, président Mamadou di ko félicité. Mm-hmm. di sant maam Xaadim. Mm-hmm. ndax xam naa ne moom euh, euh, dafa mel ni dama séddoo. waaw ndax da may jox ci sa ci sa ci sa plateau yaatu yaatu. cër boobu it. yàlla na ko yàlla sunu borom bi fay. amiin di sant sunu caméraman bi. di ñaan aussi yëf yi yaatu ba nekk au niveau national. ba xam ne bu ñu waxee. àdduna yëpp ñu ngi ciy dégg. ndax lépp lu ñuy commencé. teg ko mu commencé ci lu ndaw mhm. dañuy ñaan yàlla muy màgg mhm. ba àgg fi télé yi yi gën a mag àgg fa yàlla ñu ko yàlla defal ci ñun ñëpp ñu fekk ko amiin ñu ngi am contentement daal di sant ñëpp di gërëm ñëpp macha allah jërëjëf jërëjëf président Pape Ibrahima Ndoye Euh, kàddu yi am na solo wax na dëgg toujours dañ koy choisir ci émission yi nga xam ni euh, dañ ciy soxlaay information ci wàllu secteur artisanal saa su nekk bu ñu ko woowee aussi tamit mu nekk ku disponible euh, ñëw wuy si ñu bari na ay yoo xam ne def nañ ko ci télévision bi comme ni ñu ko waxee loolu aussi tamit moom lañ ci sant gërëm ko ndax jot amul nit ku la may cinq minutes ci temps rek amoo fayam waaye secteur bi moo leen ñor ñoom ñii dañuy perte seen temps bu bari ci secteur artisanal kon war nañ leen a jaajëfal war nañ leen a bàyyi xel waaye war nañ leen a jox nopp euh, ci bépp activité boo xam ne am na wala bépp information boo xam ne am na luñ ci joxe comme information ñu jël ko téye ko parce que xam ne ni ñoom ñi ñooy cerveau yi euh, te kilifa yi ñoom la ñuy waxal ku am nag ay kilifa yoo xam ni Euh, say seen kilifa ñoom la ñuy waxal ñooñu duñ la jox rek na la doyloo kon nañ leen déglu topp seen ginnaaw te xam ni euh, développement wu secteur bi rek lay indi mbokk yi ñu jaajëfal leen bu baax euh, tey yéen a ngi amoon seen jotaay 100 pour cent artisanal wàllu projet PEJA bi ñu waxtaanee ko ba mu gën a leer ci boppu artisan yi def naa leer na nañ bu ko defee ñu jaajëfal leen jox leen rendez-vous ci beneen jotaay as moo woon ci caméra bi ñu sant ko bu baax gërëm ko gërëm Yaxya moom it tey assisté na li nga xam ne mooy émission bi Yahya diko waaye sëñ Modou Kara sama goro moom it tey macha allah mu ngi fi euh, ma nuyu caat mu Serigne Saliou bu baax jox ko wàccuwaayam waaye gërëm Babacar Sow Doudou euh, nguy Fama ak équipe technique RTT TV yëpp ñu jox leen seen wàccuwaay bu baax jox leen rendez-vous ci beneen jotaay incha allah.